ñëw fekk si la fii si terrain woote bi nga xam ne président Ousmane Sonko woote na ko tey ñu ñëw fekk si leen fii tey lan moo waral seen teewaay fii. détermination rek moo ñu waral moo moo tax ñun ñi ñëpp ñëw fi détermination waaw wane suñu taxawaay wane suñu doole suñu njàmbaar lépp lu lu wa wax rek loolu la joxe lu mu laaj joxe ko incha allah waaw. ñu waajal le 16 nag. waaw le 16 na euh, ban euh, décision ngeen jël ci. le 16 décision bi c'est très simple détermination ak gassa gassa rek lu mu lu mu lu mu laaj ñu joxe loolu. waaw boo gisee état gën na renforcer li nga xam ne moom mooy arme bi ak ñi nga xamante ni bi ñoom ñooy. loolu loolu dañuy gën a dañuy a dalal ndax fu muy mujjee arme muy mujjee rejoindre ñu rek parce que ah, population bi moom moom lépp. population moom moom lépp waaw parce que ñoom ñoom ñoo yor suñu kiiraange duñu setaan loo xamante ne ñu siy dem duñu toog dañuy setaan ba ba ba ba ba ba ñuy loraange daal guerre civile duñu ko duñu setaan ñu koy ñu koy def daal mel daal yéen da ngeen takku ba mel ni persillé non dañoo mel ni instant ba mel ni naanaa takku ba dëgër de non ba mu dalee boo gisee li xam ne xel bu dal la bu sa xel dal mënoo ñëw fii waaw waaw kay ok bu baax yow tamit ñu si la fii bi mooy suñu leer moo woote loolu daal loo ma waral suñu tàng quoi waaw moo moo waral suñu teewaay fii quoi. mu mel ni woote bi euh, ñaari fan la la 14 la 15 jëm la 16. non du du non du ñaari fan 72 la. waaw waaw gatsa rek amul dellu ginnaaw rek waaw def nañ suñu test bi testament ba pare.

candidat la mère de sa mère n'est pas encore née. Ah, ñun bu ñu bu ñu bokkul kenn du kenn Sonko du ku ñuy sacrifié te Sonko yàlla dafa def ni du doon Khalifa Sall du doon Karim Wade Sonko bu xalaat sax pour pour pour nga da koy jéem a éliminer loolu moom mënul nekk sax loolu moom sax loolu loolu loolu génnee ko sa xel te di wax ak ministre bi bi bi bi naan day taal kër Sonko ñu ngi xaar nag. kii boo ay néew ñu ngi leen di xaar ñu fekkee li ñuy wax dëgg la si ñoom rek. ñu ngi leen di xaar nañ ñëw. ñu du ko ñuy taal këram ndax Sonko dafa dafa yor ay yoo xamante ne ay ndaw yu responsable ba pare ragalu ñu dara bu jot bu wàcc teel a jotee dañ koy wàcc dañuy wàcc bu def a yore carte d'identité te suñu carte d'identité muy suñu des mooy gunge Sonko mu dem ci ay élection te loolu du yow yaa koy xaj ndax ñun pare nañ pour loolu la seet nag suñu seet loo pare pour pour baax ñun nañ ko ñeer ci nu borom Sonko kenn du ko laal. ñu dégg ni démb kii nga xamante ni moom ñu joxe ay ñi <laughs> ñu ñëw tey jii ci ñu ñu wax ñu ngi léegi comme amatuñ carrière ci làmb léegi dañuy obligé xam ay ay ce sont des des des des des xaw ma laa ko mën a tudd des imbéciles des imbéciles laa ko mën a tuddee c'est parce que mënoo nekk mbër yow nga ne mbër nga nga war a dem bëree la fight sa life nga ne da ngay nangoo doon nervi ñu ngi leen di xaar ci kàttanu borom bu ñëwee fi la ñuy fekk mbër buñ ci jàpp nag ah ci kàttanu borom bi laa la wax de ci kàttanu borom bi mbër buñ ci téye dinañ la woon suñ bopp ndax doole doole doole du pour du pour xaar de ñëpp xam nañ doole lu muy jëriñ seen xel yi utiliser utiliser leen ko yéen mbër yi da ngeen nekk nit Sénégal bi nii amul kenn ku fi ragal da ngeen nekk nit bàyyi ñu ay ay mille francs ay cinq mille francs mëri nag amul amul leneen loo xamante ne peut-être suñuy frère rek amul leneen loo xamante ne peut-être mën nañ leen ko wax mais li ngeen wax mooy na ngeen téye seen xam ci li ngeen di dugg ñun pare nañ su fekkee yéen pare ngeen pour affronter ñu ñu ñëw ñu ngi fi ñu ñëw ñu ngi fi amul foofu ñu ngi fi amul foofu ñu ngi fi amul foofu ñu ngi fi amul foofu ñu ngi fi naka la gisee tey jii nii ak mbett ak jamono bi nga xam ne waaw mais kontaan rek ba pare bi yëpp ak seen bopp nekk seen dañuy comme seen bopp am ambition bëgg seen bopp ñu nekk patriote rek ñun xoolal dañoo dañoo réew ñu néew ñu leen ñun am jàmm yow xam nga ñu suñu tooñ nag ñu fay xam nga suñu tooñ waxee mooy sax dañoo tooñ xam nga ñu tooñ du ma ay seen am ambition ñu defal seen réew ngeen di formé pour la mu ne sonk du bokk pour la bu mu nekk bëgg réew ambitieux Sonko ñun ñun ñu gën a gore parce que ñun ñoo tax mu ñàkk liggéey ah Sonko ñàkk lépp ak Sénégal ku ne ñun ñu jëm si bëgg a jox ko Macky Sall na mu préparé na doon na ko comme bon lu mu ko jëlee jaral ko nangu dëgg boobu su bëggee jàmm maam ko su bëggee lee maam ko en tout cas ñu gën teel a maas pare na nga xale yu taw entraîné kese lu àndoo yi ko yokk ngir Sonko su mu bëgg jëlee jox ko Sonko lu mu ko jëlee jaral ko na ko nag bu dee bu amee fit na ko jërëjëf dégg nga bu mu ànd na nga xeex. est-ce que daf ngeen wala ngeen yaakaar ne ñu président 2000 et président 2024 yow sant ko dina ci bokk. pour la baax Sonko su bëgg baax su bëgg laa Sonko baax Sonko yi bëgg. waaw ak sama ak sama non non non day am day am day am Sonko Sonko dafa wóor Macky Sall mooy dàqale Sonko bëgg Macky Sall koy jërëfale Sonko par la force lay bokk mu neex Macky Sall ndax xëy na. yaa ngi dégg ñun xoolal rek ñun xoolal tubaab bi ni mu ko jërëjëf ko wala ñun xoolal ku ñu kenn ku soxla ñu balaa bee ñu balaa si pour góor kenn ku toog pour soxla ñun xool doomu toog Sénégal suñu jaay bu toog for foofu nga toog Aliou Sall mënu si dara kenn mënu si dara sama mënu si dara wala fii ay Sénégal bu toog man xoolal ma sama bopp laa rek ma sama bopp ma sama bopp sama benn bal ab bal benn bal laa kenn ñu dee mu soxla toog man jaar ma ci la bëgg a joxal ko daf soxla toog te leeral ma sa xolam lii da ngay mel bu lu ñu ragal ñu toog di ginnaaw xam nga bu ñu entraîné ñu ñu entraîné solo ana gën a ñu ci ay patriote lañ ñun jar nañu ne su ko mos njaay li ñu aaye ñu bañ ci xolal su ko mos njaay ñu dem ñuy tiit man toog leen toog leen mais soo ko xool ñu war a gëw yi naa sa wax ñu woon dem taxamas Macky Sall na ko na ko bu fekkee nag Sonko yàlla lu ko neex Sonko xëju ko delloo xanaa yàlla mais que ak ku solo bi ñu tënk kenn ku koy bokk ñëpp ci tey pare nañ dëgg waaw. léegi mu entraînement la mu yokk entraînement bi. soxna si yow tam ñu ngi lay nuyu bu baax euh, lu waral teewaay bi tey yow tamit fii terrain ak affaire bi boo demee rek ne président Ousmane Sonko woote na fii mu mel ni suba ba léegi yow tam yaa ngi taxaw fii nii nga xam ne li nga xam plaisir nag waaw loolu la kaa bi def. waaw yéen a ngi koy waajal daal les services yéen ngi koy waajal. non pare ah. bu yàgg. pare merci. yow tamit ñu ngi lay. Ah, waaw ñu ngi ah, nga ñëw tamit si li nga xam ne moom mooy manifester euh, sax la meeting bi nga xamante ni tey président Ousmane Sonko jiital Pastef woote na ko fii si terrain ak APS. waaw kontaan nag ak di wane suñu mbégte ci Ousmane Sonko xam ne <laughs> xam ne Macky li li nekk sa bopp génnee ko quoi génnee ko. invalide candidature Ousmane Sonko wallaahi du am. du am te balaa ñu koy xam ñu ne du balaa xam ne du am ba le 16 nga xam du am ñun Sonko la ñu bëgg toog moom la ñuy topp te incha allah moom la ñuy votal. Macky da ngay bàyyi mu sedd dëkk bi moomoo ko sa papa moomoo ko kenn moomoo ko démocratie lañ nekk Sénégalais yi nooy xool ku leen neex nu votel ko jàmm ak salaam. justice bi teg leen ko si yoon xam ne lépp loo leen def rek wallaahi di ngeen ko layoo te balaa ngeen koy layoo askan di leen bàyyi lool ngeen def li ngeen li leen bëgg toog seen kër ngir yàlla Sénégal nañ ko teg si yoon ñu jiitee suñu réew si yoon ba 2024 Sénégal xool ku leen neex ñu votal ko mais li ñuy bëgg a installé si réew mi. baaxul. Macky na fair play nangu fair play na Macky bu fair play. nangu duñ ko nangu suba. nangu fair play. bañ te ñun bañ dañuy bañ ba suñ dañoo suuf. vraiment dañuy bañ wallaahi duñu nangu Macky Sall xamal loolu duñu nangu duñu nangu tey duñu nangu suba. nga xam loolu lu ma ni fekk ko fi lu ma ni rek mu fekk ko fi lu appel Sonko ak appel waa Yewwi Askan parce que combat la boo xamante ni euh, ku ku ku si ànd war nga si ànd ku si trahir da trahir vraiment le peuple da trahir l'histoire de ce pays vraiment fi mu toll nii xeex pour pays droit la la boo xamante ni ñëpp war nañu koo xeex parce que bu ñu concevoir Macky Sall xeex pour le troisième mandat troisième candidature de de Wade c'est même Macky Sall. pose la question à savoir si c'est la candidat ou pas, c'est parce que au Sénégal, ces, ces responsables-là ne respectent pas vraiment le peuple sénégalais. S'il devait y avoir du respect envers le peuple sénégalais, ces gens-là n'allaient pas vraiment poser beaucoup de problèmes pour notre pays. Vraiment, un responsable, un président de la République, dans leur un an de sacrifice on n'acceptera pas c'est ça le côté bi voilà merci. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax asalaamaaleykum soxna si yéen tam bi nga fekk si leen fii ci terrain bi ngeen ñëw jàkkaarloo ñëw fekk si ñu ak président

ndax moom moom moo taxaw tey moom moom lu mu taxaw ne nem tem moom lay def nañu ñëpp taxaw jàppale ko dañuy ànd ak moom dégg parce que tey tey xoolal loo xoolal population xoolal ñii ñëpp taxaw dama lay wax du yaa ngi xool yow yaa ngi gis mbooloo bi nekk fii yaa ngi koy gis ñun dañoo engagé te dañoo pare pour lépp gis nga gunge sax dafa ndaw dañ koy jëli ji yóbbuwaat ko garde ko ba xëy ba xam jàmm rek ay am ba xam dara du xew incha allahu rabi lu ñu jaralul amul incha allahu rabi. Ah, daal ba yem si oto am na 16 wax. waaw loolu nag dëgg la am na ba pare jàll na ba pare ñoom ñuy fëgg seen dënd di tàcc mais gis nga ñoom ni ñu koy waxee rek lañ koy waxee ñun li amoon keroog ñu amaat keroog am na lu mu tombeel am na fu mu fekk mais fekk fi ñëpp tey nag ñun ñëpp a ngi fi incha allahu rabbi li amoon du amaat te li loo la ko amoon am na lu ñu nëbbu ñun am na lu ñu waxul mais nag yàllaa ngi gis te yàllaa ngi xool ñun dëgg nañ àndal instant a fi nekk ku ànd dëgg ànd ak ay xel te bu sooba yàlla dañ koy taxaw ba mat sëkk incha allahu rabbi. def li nga xam ne ñu ngi dégg ah, Basi rek ki nga xam ne moom mooy Amadou Sall yéen président Macky Sall démb wàcc na fële bi Grand Yoff daal di fay fay nag ay nit yoo xam ne dañoo war a wàcc ci si terrain bi euh, yàq li nga xam ne moom mooy njëkk président Ousmane Sonko ban message ngay lancé ci mbër yi nga xam ne ñu ngi leen di yokk alal ju mel noonu ngir ñoom ñoo yàq rek. dëgg la ñun ñoo ngi gis lépp ñoo ngi seetaan ñoo ngi dégg mais segam armée lañ wax armée ah. peuple bi yëpp bu jugoon armée yi mënuñ leen a téye peuple bi yëpp buñ jugee armée mënuñ leen a téye saa kamtumaak nag ay téeméeri nerf yi ngay ut ak askan wi mënuñoo xeex day métti rek mais mënul lu mu dara incha allahu rabbi te ñoom nuñ lu mu leen jaral benn jaral nañu ko fukk soobee yàlla waaw waaw waaw la eh s'il vous plaît ñu ngi ñaan ñu ngi